UCAB FM li gën a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye bis simil diggante président Macky Sall ak Barthélemy Dias yéen kaay yu bëri daanaka moom la ñu xëy kenn ku ci ne duñ ci nettali sunu naataangoo yi di l'info di xëy di nu xamal ne njiitu réew mi président Macky Sall kàddu yi nga xam ne kon moom lay yëkkati di xam le ne du nu ba benn mbokk moomel boo xam ne kon nekk ci biir réewum Sénégal ngay liggéey te eh, sab liggéey jaarale woo ko ci li nga xam ne kon moo di sarti réew mi yéen kaay bi xëy di xam le ne loole nag ginnaaw bi nga xam ne kon moom njiitu réew mi ngi doon dalloo ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di syndicaliste seen cahier de doléance yoo xam ne kon doona ko ci amal moom Macky Sall ma ngay xam le ne maire yi nga xam ne kon moom ñoo nekk ci biir réewum Sénégal may ñu ci kenn ngay defee nekk su dul noonu te la xam ne kon moom moo mi yéen kaay bi xëy di xam le fan yu néew yoo xam ne kon maire Ndakaaru ba kii di Barthélemy Dias jël na ab dogal ngir nag daati tabb ki nga xam ne kon moom moo di Guy Marius Sagna mu nekk conseil technique yore lu jëm ci wàllu affaire sociale foofe ca mairie bu Ndakaaru waaye tam ki nga xam ne kon moom moo di colonel Touré mi nga xam ne kon bu yàgguloo Njaay jëloon na ko ngir rek dénk ko lu jëm ci wàllu ko kaaraange ga yéen xam le ne kii di Barthélemy Diaz loole nag mi di euh, Seydina Oumar Touré mi nga xam ne kon moom nekkoon nag kii di capitaine foofee ci gendarmerie moom nag ñu génne woon ko tekki ndomba tànkam yéen kaay bi xëy di xam le luñ ci mën di neemee fi mu toll nii kay coow la tàmbale na ci ki nga xam ne kon moom moo di njiitu réew mi président Macky Sall ak meeru Ndakaaru Barthélemy Diaz yéen kaay bi di xam le ne luñ ci mën di neemee ko jamono ji dëkkandoo bu metti lan na man nemmee nemmeeku foofee ci li nga xam ne ko moom moo di diggante nguur gi nga xam ne kon moom moo di njiitu réew mi ki di meeru Ndakaaru l'info na critique yéen kaay xëy di xam bu Ndakaaru ak présidence la République fi mu toll nii dëkkandoo bu kaay bi xëy di xam le ne luñ ci mën di nemmeeku ñi nga xam ne kon daanaka ñoom ñëpp dañoo jóg wan seen gannaaw li nga xam kon moom moo di nguuru Sénégal ñoom la fas yéene fat yéenekaay bi di xamle ne président Macky Sall nag fi mu toll nii daanaka boo sàggoontul xattaay dëggantaan la nu nemmeeku ci diggante ñaari bànqaas yi doon nguuru ko Sénégal ak ñi di mairie bu Ndakaaru su naataango xëy di di xamle ne nag samp laaj ba ne lii mbaado dana doon loo xam ne kon lu mën a weele ci diggante nguur gi ak lii di mairie bu Ndakaaru ndax di dinañ ko mën a dëkkoo Sud Quotidien yéenekaay xëy di xamle rek ne jun ci man di nemmeeku kàddu yi nga xam ne kon moom la nu nemmeeku mu jóge ci njiitu réew mi ak li nga xam kon moom moo di jëf ji nga xam ne kon nemmeeku na ko ca mairie bu Ndakaaru yéenekaay bi xëy di xam leen ne dëggantaan jafe-jafe lan ca nemmee ko ba tey luñ ci mën di nemmee ko su naataangoo yi xëy di xam leen ne dëgg njiitu réew mi xanaa kay moom dafa juum ci li nga moo di ab doxalinam ndax nag bu fekkente ne si doxalin ci wàllu yoon dëgg la bëri na si loo xam ne kon ay rëq-rëq la ñu gisee ci ab doxalinam ndax boo koy xool kii di directeur général bu ARMP doon autorité de régulation des marchés ak kii di njiital Sénat ñoom ñi nga xam ne kon nekk nan fa séenam sukkandikoo ci Birahim Seck seen nekkin naka jaarul yoon te nag loolee kenn defu ko kudu ki nga xam ne kon moom moo di njiitu réew mi kon war naa mën a xoolaat lu jëm ci wàllu ab doxal linam ba tey yéenekaay bi xëy di xam leen ne Moussa Sarr mi yore kàddu waa LD doon Ligue démocratique bokk ci majorité présidentielle ñoom ñàkk ña ngay xam leen luñ ci mën di nemmeeku kàddu yi nga xam ne kon moom la njiitu réew mi wax doonu kàddu xupp doonu kàddu xoqatal waaye ab fàttali dong la ngir ñu mën a sàmmonte ak li nga xam ne kon moom moo di sarti réew mi kii di docteur Malick Diop ba tey moom ma nga ca bokk ci parti majorité présidentielle bokk ci nguur gi ba tey ne nag luñ ci mën di nemmeeku baax na ngir nag lu jëm ci wàllu doxalin réew mi léeg-léegi njiit li doon président de la république taxaw def ab fàttali ko ko taxaw seetlu ngir rek lépp loo xam ne kon jëm na ci wàllu yoon ñi nga xam ne kon tàbb nañ leen ñu mën leen a xamal lan mooy yoon wi ak nan ca war a doxale yéenekaay bi xëy di xam le ne luñ ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàllu woowule eh, ki nga xam ne kon moom ba di Abbas Fall doon militant Pastef yéenekaay bi xëy di xam le ne kii di njiitu réew mi du dàq kenn du fi kenn ndax nag luñ ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàllu wi lépp rek dañu koo teg ci aw yoon suñu naataango yi xëy di xamle ne kon kay jafe-jafe dëggantaan lañ kaay bi xëy di xamle ne kay mbirum astu soxna ba fi mu toll nii pënd ba wuréegul l'observateur yéen xëy di xamle ne ginnaaw bu ñu njëkkee dàq atte ba ni ki alxames si tey ji juróomi fan ci weeru mai lañu fas taxaw ngir mën a leeral tuuma yi nga xam kon gàll nañ ko ci seen kaw yéen bi moo xëy dunu ko nettali sunu naataango yi xëy di xam ne juróom benn ci ay sages-femmes yoo xam ne kon teg na leen loxo ñoom ñoo war a taxaw ngir rek mën a leeral li nga xam ne kon moom lañ leen tuumal ci faatu la ñuy jànkuwanteel booba ak léegi ba tey yeneen yéen kay ña moo jëm ci wàllu ko bokk moomee li nga xam kon nemmeeku nanu ko ne nakal jamono ji lu jëm ci wàllu ko rebel yi nga xam kon jamono ji ña nga fa woon rawatina ca bëj saalamu Casamance googe nga xam xam ne kon yéenekaay bi mu ngi xamal ne lu toll ci téeméer fukk ak juróom-ñett ci ay bërëb yoo xam ne kon ñii di l'armée bi ñoom nag fi mu toll nii tegoon ci loxo yéenekaay bi xëy di xam le rek ne jamono ji coow la bëri na ca lool ba tey luñ ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xam ne kon la noo cay na si ñoo xam ne kon am nañ ca lool ay jafe ko na si ñoo xam ne kon fi mu li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu jàmmarloo bi nga xam ne kon moo nekk ci diggante ñi nga xam ne kon Sénégal ñoom ñoo di way fipp yi ak ñii di askan wi nga xam ne ko ñoo nekk foofu la yéene kaay bii di dakaractu.com moom ma nga ci wàccaayu nawet bi nga xam ne kon fi mu toll nii ab doxu ñaxtu boo xam ne kon ñenn si jigéen ñi woo nekk foofu la ñu ngi koy waajal foofu ca Kaolack yéene kaay bi xëy di xam leen jigéen ñi nekk ca kaw kaw gi ñoom nag niki fukk ak ñeenti fan wii lañu waajal benn doxum ñaxtu boo xam ne kon dañoo bëgg ñu gën leen a bàyyi xel ci lépp loo xam ne kon jëm na ci seen wàllu ko taxawaay ndax kat nee nañ lu jëm ci wàllu dañ leen di faral di fàtte ci lu bëre bëri bëri jëm na ci wàllu ka nawet bi ak taxawaay bi nga xam ne ko ñoom kat nee dañuy dund ay jafe-jafe eh, ci wàllu ka nekkeen nga xam ne kon moom la ñu nekkee ndax kat dañoo bëgg ngir daal ñu gën leen a bàyyi xel ci lépp loo xam ne kon bokk na ci lu leen di gën di jàppandal yéenekaay bi xëy di xam leen kii di Aïda Ndiouk Mbaye mi nga xam ne kon moo nekk ci bopp ko ga leen lëkkale ne nag lañu bëgg mooy ñoom soxna yi nañ leen gën a bàyyi xel mbokk yi yéenekaay goog dig daje lëg incha UCAB FM li gën Papa Saer Mbaye